mbokk yi jërë ngeen jëf ñuy rafetlu seen uh, te waaye ci rajo Futur Media suba tey gannaaw bu ñu door lii di RFM ngeen topp programme bi ba jamono gi nag ñuy waaju soobu si seen émission ba ngeen di xaarandi saa yi waxtu yu jotee di uh, xalaas ci kàddu gi nag Cheikh Tidiane Diagne fegoog passe partout uh, ci beneen fànn gi ko féete nag ci machine gi moo di Seydina Alioune Ba. ci wàllu digital bi soxna Yacine Pouy moo fa daal di fete gannaaw loolu eh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaanal kenn lum jàmm asalaamaaleykum Basbar. waaleykum salaam Diagne maa ngi lay nuyu. maa noo def. di la delloo ziar di nuyu yi. tey moom Diagne yee ngànk mbir mi. loolu yàgg na a ngànk réew affaire bi. loolay dëgg nag. a téye réew. am na ko dul nangu nag mooy ndóoyeen yeeg faal yeeg ñu ni mel. seen affaire yi ak internet di ñëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ñoom ñu ñaanum jàmm mm-hmm. waaw noo def nag. def jàmm da nga ñëw rek simple benn bi ah, bàyyi ko fee. bi laay wokosu bi xam booy wokosu da ngaa yor. da nga yor te yoroo te yoruma. mooy dëgg. waaw ah, damaa niru yor te yoruma. <laughs> mais nag comme comme da ngay tiital sa pauvreté. da cee baax day yenn saa yi dégguloo lu ma la wax. nga waxaale loo atunul sax. waaw mi ngi noonu ne ko maa ngi ñëwaat. waaw maa ngi ñëwaat dem ñëwaat dem ñëwaat. say nelaw doyul. Hmm, ma nga noonu mais yàlla na yàlla dolli sutura. moo mat a ñaan ndax ci la lépp xaj kese waaw sutura biir ak biti. Mm-hmm. di ko ñaanal ñëpp. loolu la ko mën waaw kon mbokk euh, ñi ngi ci euh, xalas bi ba tey tey jii nag la fii yi di jeex. laata ñu jubluwaat. Euh, semaine beneen semaine bi. donc tey jii ñàkkul ni danañu doxal ñaar ba ñetti numéro. ba ñeent bu ñu neexee ba ñeent bu ñu neexee. bu ñu neexee xaababal. bu ñu neexee dem ba 11h30. ak ah, ci attan naa ko. premier fait bi lu mu doon. Diagne. Mm-hmm. démb laa xam ni. Mm-hmm. ñu bëri surtout ñi nga xam ne ay jigéen lañu. ñu ngi leen di maanaam ñu ngi leen di tooñ quoi. Hmm. ñu ngi di tooñ parce que am na ñu doon wax fii ni démb ci kaawu ndaw si fi jàlloon noonu. mooy bi waaw. cest à ñu ñi nga xamante ne dañ la ciy woo di la expliquer seen kaa mu nekk mu nekk cas yoo xam ne dafa similaire ak ak boobu. Hmm. léegi après seen ay réaction ñoom seen ay famille dañ ciy jaar naan ñii dañoo am ay rab. Hmm. wala dañoo réew wala affaire yu demee noonu. fekk na ñoom li ñuy dund au fond. ñoom kese ñoom ñoo xam te mënuñu ko wax kenn. extérioriser. maintenant man démb rek jot naa ci ñu bëri ñoo xam te ni pour pouvoir se soulager wala pouvoir ñu mën a tegg yenn affaire seen kaw. am na si koo xam ne dañu moom lu bari. ñu ngi dëkk fii ci côté alentour Dakar yi quoi ba génnee mu ni ma je pense que mën naa li message bi sax mm-hmm. mu ni ma moom son problème mooy dund na viol depuis bi mu ne bi amee 9 ans. 9 actuellement am na 40 ans. Hmm. mais bi mu ko waxee yaayam yàggul. yaa da koo yaa ji da saaga ne ko taskatu kër nga mu ne heureusement ba bi mu amee neuf ans waxuma woon. Mhm. message baa ngi nii. Hmm. heureusement ba waxuma woon bi mu amee neuf ans. man man naa ko lire. donc am na détail yoo xam ne naa ko bañ a xam man naa ko bañ a wax pour bonjour passe moi j'ai ans mon fils est né à ans une fille de dix ans un petit garçon de quatre ans cela fait trois mois quand j'ai parlé euh, de mon viol à ma mère par un membre de sa famille elle m'a taxé de menteuse. je me dis heureusement. que je me suis que je ba mu amee 9 ans ko woon. Mhm. léegi nag loolu ni mu daal a bari. dëgg la gis nga kii di waaj ñëw nii. Mhm. meer xaritu papaam moo ko violé moo tam bi mu nekkee xale. Mhm. mu amee mu nekk xale. ci jamono jooju moo ko yaayam yaayam saaga ko ne ko bu mu jëm kaw. muy dundaale loolu ak métit boobu noonu. mu dem ba benn moment mu bëgg fu mu réfugié wu mu dem dugg ci ay mbirum daayira. Mhm. jàpp ne diine gi mën na ko cee génne. waaw mhm. xamante fa ak benn waay ci daayira bi. Mhm. kooku tam ñëw am lu mu ko wan dans un premier temps comme ku koy jàppale. ndekete kooku gën a yées. keroog de jot naa dégg euh, yaakaar naa mën naa ko wax mbirum euh, waykat ku jigéen goo nga xamante ni euh, da doon expliquer viol yi nga xamante jot na ko du méttital yi nga xam ko doon kii. mais nee ñu Euh, bu ñu la déggee nga nekk si situation de détresse mhm. ñu si bëri mën nañ cee profité dañuy ñëw mel ni ku lay defal mhm. mel ni ku lay jàppale mhm. nekk te boobu ñoom itam ña ngay yoonal pour mën a àgg ci yow te te situation yooyu yow pour nga wéeru ci seen kaw dafay yomb day yomb effectivement parce que da ngay ci moment de faiblesse am ñoo xam sa moment de faiblesse dañuy profité daf la def effectivement kii kooku noonu la ko def ëmbal ko pare bañ mu yor ñaari métit ñaari métit waaw jafe du nii seen waa kër bu kiwee ñaan dafa ñàkk kersa dafa am ay rab te xamuñu ne. te lépp ngi door ci ba muy am juróom-ñeenti at am na nekk ci moom loo xamante ni. ba muy am juróom-ñeenti at ci la ko dalal. Ah, ñu déglu ko déglu maa ngi si samay euh, vingt cinq ans vingt la am instant bii bi ma amee sept ans sama benn xaritu papa moo ma violé woon mais bi ma violé bi ma ko waxee sama yaay daf ma tuyee dóor dóor yu métti mun moo bu mu jëm kaw mais man ba tey fi ma toll nii ba fi may waxee ak yow nii maanaam yëpp bi ma soloon Diop Boya bu ma soloon ba léegi mi ngi ci sama bët mënuma koo fàtte damay tëdd sax di ko gént ba tey te loolu bu ko yéegee yàgg na loolu jàpp ma trop metti ma loolu may doxaale ak moom instant bi def naa trois mariages mais yëpp dama cee divorcé parce que su ma nekkee ak sama jëkkër tamit sama xol bi day bon sama xol bi day bon damay nekk di fuloo di mer te kenn du ma def dara ah stress may jàpp trop trop sax man mooy sama problème waaye sonal na ma trop mënu maa nekk ak waaw ñun nag ki dafa am ay rab ki day dafa am ay rab dafa def dafa réew lu nekk laay dégg mais au fond li nekk si man du kenn si ñoom ko nga xamante ni rek woon dina ma déglu wala mu jéem a daal mu conseil ma jéem gëstu lan la daal di ma gëstu lan la loolu moo nekk si mag ñoom dara ñoom ku nekk da ngay indi sa préjugé affaire bi daf ma jaax damay toog di xalaat man dong di wéet sama moo fi nekkoon kon ma si jàppale moom des fois mais tey moom tamit xamul lan la waaw te moom moom sama papa moom kooku moom miir am mais moom problème mu naa am si këram moom kooku la daan woo ko ko expliqué du waxtaan ak moom ak lépp dama ki ma bu jigéen la daan génn suñ taaw maa man boobu léegi loolu day dox ci sama bopp bi mënuma koo fàtte ba tey ji maa nekk ak kenn wóolootuma kenn waaw damay tëdd si néegee rek di lëlu su ma dee liggéey du ma xam lu may liggéey soo ñëwee dama tox si biir kër gi rek du ma génn du ma dem fenn wala ma am daayira may dem ci daayira yooyu pour mais du ma nekk daal du ma nekk mais nag bi depuis bi sama papa gaal ñëw ba léegi affaire bi daf ma gën a jàpp nag ma gën a jàpp gën ma def problème yàlla may na ma ñetti bant fu mu jikkii nii ba ma koy am dafa am xam ne ma ko ma expliqué ko sama problème moom tamit ma expliqué moom laa ko mos a moom tamit def bëgg rek te yàlla tax ñu bokk daayira mu expliqué ko lépp ni mu demee de A à Z mun ma dinaa la jàppale mu abusé si sama confiance ba yàlla def amu moom doom nit bi ñu amee doom moom tamit mu fi ay responsabilité nanguwu la assumé loolu tamit joué ci trop mu marqué ma trop dëgg yàlla ba xale bi muy nii léegi mu am un an du ko chaque jour maa ngi dox gisante moom ci dëkk programme ma dem dajee moom waaye ba léegi nanguwul reconnaître bi moom rek moo daan déglu moom kese daan déglu su ma am lu métti moom la xam daan waxal te am lu métti ba moom kese laa gisoon wax dëgg yàlla ñëpp xam ne moo ko maa ngi bëri na daal kii nan la mën a nekkee ak ak ni mu ñàkkee keese or que ñàkk moom keese sax mais xam nga am na boo fa jotee jaan moom lu bëri bëri da nga koy éviter dama doon taw lu bëri bëri mais moom dafa ñëw. wan ma lu ma kenn mësul wan xam nga ma am si moom confiance jox ko confiance totale waaw lu ma daan métti lu nekk moom laa si daan waxal sama passé tamit lépp laa ko rencontré parce que dama dem ba mënatuma ko woon dem ca sama bopp waaw ma ma wax ko sama lépp wax dëgg yàlla ma ko sama dara moom tamit mu may jàppale si côté lu nekk ma dem ba am si moom confiance te ko fu ma tegul kenn wax dëgg yàlla ma nekk ak moom après mu war ma moom tamit pass hmm. mi ngi noonu xam nga nag euh, lu metti yàgg na ci jamono. Hmm. xëy na nag tey jii la àdduna dox ba am ay jumtukaay yu bees. Hmm. Euh, ñëw bu ma ko waxee xel dem ci jumtukaay xarala yi. ay réseaux sociaux yeeg yu ni mel. ba xëy na tey tey jii sax ñi mu am yenn envergure yi. mais li ma gëm ba gëm ko. mooy lu metti lu ñaaw yàgg na ci àdduna. parce que kii boo xoolee eh, nee na ba mu koy dal elle avait juste neuf ans. Hmm. ka ka def xaritu papam la. Hmm. te bu mu yëkkatee ay kàddu wax ko euh, maanaam denc ko boobu. Hmm. di ko muñaale ay ati ati ati at. ba tey ji traumatisme boobu mu koy dudd. ba mu yëkkatee ay kàddu yeggee koy waajuram bu jigéen kooku daga saaga gëmm ko. parce que daanaka daga toroxal. daga donc boo xoolee yu ni mel bëri fi. bëri fi nag bon xëy na nag. ñun itam on a un problème par rapport ak conception bu ñu am ci viole mhm. du ma ne tubaab référence la ci lépp waaye am na yenn yi nga xamante ni référence la. si euh, te yaakaar naa ne am na yu baax yi nga xam ne bu ñu ko reyee ci ñoom. Mhm. gëm naa ni bu dakkul itam. Mhm. dana wàññeeku bu lu bëri. je pense que Sénégal ci lu jëm ci wàllum euh, viol. dañu ko criminaliser. boo ko defee tribunal am ci firnde yu leer ni que yow. Mhm. yaa ko def mhm. maanaam sa ngiiru dund daanaka prison ngay ngay féete. Mhm. donc je pense que nañu gën a mën a euh, waxtaan ak njaboot gi. gën a ubbi kanam yi. rawatina ñi nga xam ñoo di waajur parce que tamit doom bu demee ba mënut a dénku ci ay waajuram. dana jafe lool bu amee problème war kaa mën a wax moo tax waajur yi muy góor bi wala bu jigéen bi di mag. wala je sais pas rek ku ci nekk yaakaar naa war nga mën a yaatal sa kanam. Hmm. yaatal sa xool ngir bu ko daa defee ku ci mënti am problème lu mu néew néew néew néew. Hmm. bu la ñëwee waxtaanee ak yow xëy na solution mën naa am. Hmm. waaye ndëpp ndëppal bi dafa bëri ci réew mi. te yu ah. ñaaw yi ma ngay xew ci kër te ñu la gën a jege ñoo koy def. dafa am lu ñëw lu ñëw ci sama xel jaañ. xam nga xam nga par exemple. kii kii wax yaayam loolu à l'âge de c'est-à-dire yaay elle trouve rien lu saako nekk bu mu jëm su amaana même mën na xam ne dëgg la sax. Mhm. mais pour jéem a sàmm mbokk. effectivement bañ man mhm. man dama foog ni sama doom. Hmm. mbindeef ci kaw suuf du ma ko gënal. wallaahi la na famille tas na Sénégal tas mais sama doom. Hmm. fekkee dañ koo tooñ moom lay àndal. Mhm. mais pour bañ tas famille wala ay bañ ay mbokkoo ñaawoo ñu def sa doom loo xam ne da koy topp à vie mm. nga ne non da ngay sàmm mbokk moo tax sa doom ngay bàyyi moom mu souffrir mm-hmm. xamoo lan nga koy teg c'est-à-dire yow muy waaj bi dayaa yow yaa ko njëkk violé yow bi am na gars yi xam ne leen maanaam bëggoon leen sàkku mm-hmm. ne boo leen bañee dañuy yuux ne dañu dañu doon violé mm-hmm. ba am na si koo xam ne sax tëdd na ci kaso trois ans bi mu génnee kaso fii la jubal si ci accusation de viol parce que waaj ndaw si bëggoon na mu egg ci kawam waaj bañ jàlloon na fi jàll na fi deux a trois fois ba am na benn jàngkatu daayira tam bu ñu ci def la même chose. Hmm. mais Diagne léegi genre accusation bu bu légère boobu noonu. nga xam te ni mun am munul am certificat médical parce que egguloo ci kawam. Hmm. donc dañ naan tentative de viol la. tentative bu doon am na. Hmm. jàpp nañu tëjee ñu trois ans. ñii nga xam te ne ay xale lañu war a nekk yaay war a nekk sœur ci seen biir kër yi ñii seen nijaay ñoom ñoo leen di violé ñii seen ay papa yi leen jur ñii seen ay mag yi leen jur ñii seen ay doomu baay c'est-à-dire mhm. dafa ba am moment donné da nga yaakaar ñun dañoo ne ci benn jëngul quoi benn àll boo xamante ni mhm. gaynde bu romb lekk quoi ah. mooy loolu après léegi yow waajur nga war a protéger sa doom nga naan ah, non bu ñu tas famille bi bu ñu naa nga max naa nga boo demee ci yoon day ñaaw ba du ma ne société africaine wala société sénégalaise jàngalu ma kenn waaye tamit on a nos torts ko tubaab di waxee am nañu ay lënt-lënt yu nga xamante ni bokk na ci nga xamante ne moo ñu tënk. ba xëy na suñuy jafe-jafe yu bëri du ñu ko mën a régler mais yaakaar naa ni daal yaakaar naa ni bu fekkante ne waa jur yi mate nañ ko parce que jur sa doom ba pare mu ragal la pour lan. pourquoi passe partout nga war a mën a jur sa doom ba yow boo boo tolloo ci buntu kër ga xale yi daw nañu dem laaxutu ji. <laughs> boo duggee ci kër gi jàmm jeex na. Hmm. mais kooku bu ñu amee problème. du la ko wax fan lañ la koy waxee. du la ko wax danañ ko téye. wala dem génne ko ca biti yaakaar ni peut-être que dana leen ko saafaral ci mbedd ma kooku gën leen yàq kii loolu ko dal. wala ñu ne benn comportement. waaw moom laa la wax. nga leen di jugé. tey jii nii ñii di xëy na bon dama yàlla baal quoi am na ñoo xamante ni da leen di xiir ci sax ñuy dem di def di def lu bon. si si fekk na yow à la base la koy yàq ci biir kër gi la jógee. ngi noonu mi ngi noonu. nañu déglu seen doom yi muy góor muy ah, jigéen mooy dëgg dañu indi déglu loolay dëgg yaakaar naan daal waajur daal njaboot waru a mën a eh mën a ragal ba du ko wax ay jafe-jafeem donc nañu xoolaat euh, taxawaay yi gën ko defaraat ngir ko daa defee lu ci bëri yaakaar naa ni war nañ ko mën a régler au sein de tamit di protéger dafkatu ñaawteef yi parce que ñu ngi ci biir hmm. mooy ña la gën a jege en général di ko bokk ndey ak baay ah, ah. ah. a deekay ma nga noonu kan fan lay protéger doom moo jaaxal ñëpp moo jaaxal ñëpp. waxal ñi ñu nekk ay nit. waaw fii fee nekk leen nit. daa am benn élément boo war a ñëw après boo xam te ne waa ji. Mhm. Guinée la waroon dem quoi mooy ñi comme say copain ma nekk Dakar man ak yow jaañ ñu xamante miinante ma jékki-jékki rek ñu ko di déggante ma dem naa Burkina wala dem naa Gabon. Mhm. wool ne la booy am naa fi benn liggéey boo xamante ni tu perçois chaque mois un million dañ lay defal nangam ak nangam te ay wax yu terre à yoo xamante ni. Mhm. non mais da ngay financer sept cent cinquante mille euh, entreprise moom mooy def vingt pour cent nga def vingt pour cent daf ci am ñaar xam bokkul. Mhm. parce que nga xam ne moom dem na dund fee bi Guinée la ko dundee mais kii doon iri copain am euh, Burkina. Mhm. dégluwul ni mu ko doon ak ni mu ko naxee ak waxu dof yi mu ko wax. te am ñoo xam dañuy gëm wax ji. Mhm. jógee Sénégal dagg paas jël bus def deux jours dem Burkina wala Cameroun. fekk ay naxee mbaay la. bu ñu demee boo gisee ma wax la ko parce que yàgg nañ ko lancé quoi mais waxuma la woon dara. voilà ma ne xaaral léegi après ma toogee sama xel mi ñëw si ma ne xaaral ma wax na ko comme ni ma la wax rek da nga may envoyé sa sa photo carte d'identité voilà recto soit ak euh, sa passeport bi aussi voilà da nga ma koy envoyé plus deux numéros fonctionnels ñaari numéros yoo xam ne bu wootee rek jot la. waaw boo gisee malo la woo parce que moment boobu maa woon heure pause quoi dañoo jëleen pause voilà léegi après man dama dama doon renseigné moo waxtaan ak benn boss boo xamante ne ab sénégalais la ma woon si si entreprise bi léegi moom mooy xamal ne actuellement gars yi ñu ngi lancé recrutement dañoo soxla ci domaine magasinier voilà comme ça boo ko defee parce que ay marchandises comme yu jógee Europe la di ñëw en Afrique voilà lu si toll ni comme ay ordinateur ay frigo ay genre voiture ay yeneen affaire xam nga ay yeneen marchandise bu ñëwee ci entreprise bi maanaam yi yéen a koy classé yéen a koy jël ranger ko si biir magasin bi wala parce que ay conteneur ñooy wàcc souvent ak euh, yeneen affaire voilà ñoom ñooy wàcc bu ñu wàccee si entreprise bi ñëw ci magasin bi voilà yéen a koy rangé comme ni ma la ko waxee entreprise bi euh, par dollar lay fay nee na ma salaire de base bi fii euh, quatre cent quatre cent mille francs la voilà mooy salaire de base bi voilà boo ñëwee fi boo commencé liggéey chaque fin de mois dañ lay fay voilà boo ñëwee nag dañ lay wan liggéey bi nu muy demee après ngeen parce que du doon yow kese équipe ngeen di doon yéen a nekk ci ci ci magasin bi voilà foofu ngeen di posté wu instant bi nee na ma bu fekkee pare nga pour ñëw tamit voilà mun nga mun nga préparer voilà nga démarrer ñëw ak sa passeport bi ndax fii ba boo ñëwee dañ lay defalal euh, papier de l'administration ak papier de l'immigration pour comme ça sa kaaraange ci biir dëkk bi comme boo ñëwee nekk étranger dañ lay defalal wala euh, yenn papier yoo xam ne dalay permettre nga garanti ci dëkk bi et dañ lay defalal passeport international en cas de voyage ndax mun nañ leen affecté beneen pays li ci mel ni Côte d'Ivoire Ghana wala ñu yóbbu leen Canada sans dépend voilà euh, su boobaa bu ñu lay yóbbu ñoom ñoo lay jëlal transport directement ñoo lay fayal billet d'avion aller retour et en plus dañ lay defal carnet de santé boo feebaree wala sa soxna feebar wala sa doomi feebar ñoom ñoo koy jël en charge aussi dañ lay ubbil compte bancaire waaw nga xam ne bu ñuy viré dañ lay viré banque directement ndax ñoom duñ fay par bu ñu lay fay nga dem jëli ko au niveau de la banque sans problème. Hmm. buñ ko wécceekoo ci franc CFA nag tey toll quatre cent mille francs voilà moom la fay par de mois. léegi yow yaay def vingt cinq pour cent entreprise mooy def soixante quinze pour cent yi. voilà vingt cinq pour cent yi da ngay def mille. voilà si lañ defalal sa papier yooyu ak yi dañ lay signer contrat de deux ans. voilà loolu yëpp aussi ak logement yi dégg nga dégg nga Diagne kii li lim ko bu baax a baax a baax. xam xam nga lii dama ci tombé. waaw xam nga la may présenté xalaas bëriwul. waaw boo demee ba am ña fi newul bu aba aba bu fi nekkul. ma nekk fii ci laay faral di ñëw jàpp ci liggéey bi. gis nga lii nii. mas naa ko teg fii xalaas. waaw c'est-à-dire que c'est comme si nit ñi duñu déglu wala duñu dul bëgg a bëgg bëgg bëgg bëgg a nekk ci jàmm quoi. souvent sa xol dafay jeex xam nga lu tax. bu ñu nee étudiant. Mhm. par exemple quoi étudiant. censé être intelligent alerte. merci maanaam mooy nga xamante ni mën nga anticiper si yenn yi. et la majeure partie ñoom ñoom ñooy dugg ci yii nii. imaam kuraan la non dañuy defal passeport international. dañ lay ubbil compte bancaire. lan mooy passeport international. dañ lay defal papier administratif. ba pare ne la boo ñëwee magasinier ngay nekk Burkina Faso Burkina Faso bii lañ la wax. dëgg la wax man dem naa fa demaat fa. non mais c'est-à-dire. waaye la <laughs> naan léegi nag kii di ñëw moom. moom étudiant la woon étudiant la boo xam IAM e la nekk. IAM e Guinée lañ ko yóbbu Guinée. Guinée bii. Guinée bii la dem. Guinée. te dugal na xaalisam. les mêmes faits ak kii li mu wax nii au Burkina. waaw les mêmes demee Guinée. mais moom dem na joxe na xaalisam gisul lu mu xam ñàkkante na ko ak ñoom delloo nañ ko moitié xaalisam ñëwaat ñibbisiwaat na. te te te loolu risque la sax dem ba dëkk boobu c'est-à-dire que mën nga mën nga fa ñàkk sax sa bakkan. te ñi ne fa yóbbu jaañ ñooy sama problème leen am ci ñoom nga dem bàyyi ak ñun la non am na kenn ku ma wax xam nga man moom comme j'ai dit depuis ma bor man boo ma waxee benn affaire rek damay dute. Mhm. damay dute ne est-ce que kii amul lu ko tax a jóg ak yooyu affaire bi noonu maanaam loolu laay njëkk teg. waaw ah xëy na loolu sax moo lay moo lay nit woo na ma di ma wax xaw ma. Mhm. Sénégal fii de ay waxu Panama la ma doon wax. ma nekk lan mu ne ma Panama visa Panama nan nañ koy lijjante ma nekk sama waa ji looy wuti Panama. <laughs> <laughs> mu ne ma xama après daal wax na ma daal nee nañ jaar jaar yi boo jëlee avion à partir de Dakar di nga wàcc fii di nga wàcc mu ne booy dem di sànku. leer na. Panama boobu ak lu mu sore. Hmm. gëm naa ni sénégalais am fa. lu sénégalais mën a tukki tukki tukki tukki hmm. gëm naa ni Panama boobu sénégalais am fa lan nga mënee tëpp àdduna yëpp di dem ba Panama yaakaar ni yow fa nga war a mën a tekkee. te réew mi fii ay nit ñu ngi fii toog di tekki. ma ne. nit a ngi voyage dem fii nii di fi tekki voyage ne veut pas dire mais sénégalais ñun lu ñu jàpp mooy képp ku jël roppalaan rek dem rek. mooy tekki nga. cey boo ngeen doon tukki ba dem ba gis parfois nit ñi si condition yu nekkee di ngeen xam ni léeg-léeg sa dëkk tekki fii war naa te Sénégal gi sax nit ñi mën nañu fay tekki donte nag metti na waaye am na li nga xam ne boo ko defee yàlla mën na laa wërsëgal nga toog fii tekkee fii te nit lu muy wuti nag am ko ci réew ma daax. benn ko benn côté tamit nag ah. Mm-hmm. Cheikh. Mm-hmm. bu ñu dégloo waaj a pare. Mm-hmm. dinañ wax lan mooy expliquer aussi ñoom tam ñu neex a këf. ci cadre liggéey. acca bismillah ñu dem. confiance bu ma amoon si sama benn xarit xarit boo xamante ni maag moom ñoo bokk même koñ ñoo jàngandoo daanaka daal li ñu séparé maanaam moo nekk mu am bac mu dem benn école man ma dem IAM léegi nag moom mu génnoon lu yàgg dem ngi fële Guinée Guinée Conakry ma toogee lu yàgg après gisuma ko après benn ñu doon dégg ne par WhatsApp ak yooyu noonu man ko naka foofu mun ma sabab man ko naka seen entreprise yéen a ngi liggéey mun ma waaw entreprise bu baax la nice ñu ngi gérer liggéey bi franchement baax na quoi ñu ngi góorgóorlu bu baax baax après da nga may envoyé sa CV bu ko defee ma déposé ko si entreprise beeg yooyu man ko waaw pourquoi pas ma envoyé ko sama CV ñu toog lu yàgg a wax ñu si presque ay mois ñu toog avec ça ma envoyé ko message ni ko boy naka mun a déposé woon nga mun ma waaw maa ngi waxtaan ak samay supérieur ak yooyu léegi après envoyé waat ma CV bi ak sa photocopie carte d'identité mun ma waaw man ko ok pas si waaw ma envoyé ko CV bi de nouveau ak sama photocopie carte d'identité mun ma ok ko dugal léegi au bout de quelques jours une semaine yooyu mun ma dugal naa ko léegi gars yi ñu ngi étudier dossier bi mais am naa yaakaar ne que sa CV bi baax na quoi gars yi ko soxla man ko ah man ko ah waaw sant baax na léegi bi ñu defee noonu yàggul dara une semaine bi jaar ñu teg si quelques jours ñoom ñu directement ni ma Babacar ma ne wii mu ma ton dossier a été validé donc da ngay ñëw pour plus de renseignement oowal bi nga ni ko woor nañ la moom dina la teg ci ba ngay ñëw ma mun ma ah mun a mun a allah léegi nag amatul xaar ñëwal man ko ñëw comment mun ma ñëwal man ko mais man de dañ maa laajte xaalis fekk waaj bi ma dafa ne boo ñëwee nga indi trois cent ne ko trois pour lan mun ma demande moo sa copain bi dina la wax man ko ok ma ma indaale trois cent mille copain bi ni ma waaw trois cent mille ma mun ma waaw c'est normal man ko comment mun man maa ma la wax rek jàppal si ah, loo xam te ne mooy loolu man ko ko ci trois cent mille yoo jël ma vol ma jël yoonu suuf sonn si am na deux jours dooraa yegg ma yeggee moom mu récupérer may yóbbu ma mais yóbbu ma moom fi mu dëkk feneen la ma yóbbu seen ay logement bi ma demee ba foofu noonu ay basan laa fa fekk ñu fa am ñu tëdd man nag comprendre ma ma ñëw rek ne xam damaa ñëw ba ma dem tëdd fii rek ba suba man mooy loolu man ko amunoo ah, man ko baax na ok garaawul léegi ma tëdd foofu ba xëy suba ñu war a dem xëy suba dem entretien bi ñu dem pour def entretien bi yu ñëwee si accueil bi rek ma xool dugg ñu dem ñu enregistré ñu dugg ñu def entretien entretien bi ñëw ni ndax indaale nga xaalis man ko xaalis bi pour lan la mu ni ma poste bii ñu la woowee poste de négociation la woon parce que il fallait que ñu négocier parce que ñun instant bi newuñu en phase de dèjà ñaari wax ak ñu noonu bi nee na ma affaire logement assurance kii ni ma négocier ma wax copain bi carrément man ko booy waxoo moon lii de mun ma garaawul ax benn la rek man ko ah mun ma wax man ko yaa xam de man xawuma ma fi mun ma garaawul man maa fi nekk ma jël trois ans bi jox ko copain bi copain bi jox leen ko léegi man la ñun mënoo demee nga ñëw jël si résultat yi léegi ñu xëy suba ñu ñëw pour jël si résultat yi ñu ñëw ñun ma franchement entretien bi ça a été baax na. Ah. xoolal jaañ condition yi ñuy fanaan si seen néeg yi ñuy fanaan le temps que ñu déglu deuxième partie comme temps bi mu ngi xaw a dab. Mhm. ñu déglu deuxième partie bi ñëwaat. donc poste bi di nga ko occupé mais poste na nag ki koy occupé day voyager de trop day jógee si dëkk bi dem si yeneen dëkk ay Sierra Leone Côte d'Ivoire sous région bi yëpp da nga fay dem quoi léegi pour cela nag fere yi entreprise moo ko daan jël au départ mais dafa doon xool kuñ fa affecté rek doo ñawaat man ko doo ñëwaat mun man ko pour lan ñun mën noo xamul entreprise bi du jëlati frais bi yëpp en entier donc yow da ngay indi quarante pour cent entreprise indi soixante pour cent man leen cest à cent cinquante mille léegi plus les trois cent mille que tu as versé ça fait six cent cinquante mille ma ne leen pour lan ñu ne ma non c'est comme ça demaat rek yëpp du problème gars yi affaire bi day baax di nga am liggéey bi liggéey bi moo gën loolu bu ko defee après yow boo liggéey un mois deux mois rek da ngay mën a nekk quoi ñëw amburé ma ni ma booy bul xalaat nañ dem ñu oote man ko awma kenn ku may oot di ko laajte waa trois cent cinquante mun ma sii nañ dem rek copain maag moom ñu ànd may woote di woote di àbb xaalis àbb xaalis ku nekk ñëpp di ko sonal sama pensée ñëpp ma leen di sonal waaw bañ envoyé ma deux cent cinquante mille ma jox leen ko ni leen fii nag laa mën a yem mënumaa indi leneen comme xam ne ma garaawul lépp naa ko gérer li des man ko ah mun ma waaw mun ko ok mu dem ak ñoom ñoo indi deux cent mille joxe ñun ma waa après da ngay commencé formation ma xëy su ko commencé premier jour ma def formation deuxième jour ma def troisième jour bi nag bi may def si ñu woo ma ma ñëw ñun ma sa téléphone dañ ko soxla dama ci ñëwaat leen. waaw xam nga dañ ko dagg. waaw yaakaar naa fu mu ne téléphone dañ ko soxla boobu la ñuy sayal téléphone. mën a dañuy récupérer téléphone am. téléphone am léegi li ci gën a am importance dañuy déglu. Mhm. boo fa demee amul liggéey amul entreprise amul defee nii ba nga sës xam ne ñu fu ñu mujj mhm. fii daal saa lii moo fi am. léegi da ngay jéem a fexe ñaar ñoo indi comme ni comme ni ñu indee yow. nga indi leen. nga am ci commission encaissé nga. Mhm. amul liggéey ku la ci directeur bi tudd du ñu ko wax. entreprise la mooy seen boîte mail du ñu ko wax la mooy seen amul entreprise existé mais da ngay lii depuis presque cinq ans ñu ngi koy wax. Ah, benn booy génn na ci àdduna su ma juumul euh, Burkina Faso woon teg nañu ko bi fii nii. Mm-hmm. te mbokkam moo ko yóbbu mu dem fa feebar entre hôpital dee fa. chaque fois da ngay wax mais lii mu dangay wax ba sonn. parce que mbokk amatul xarit amatul. te lii nag xam nga xam nga ku la wóolu moo la mën dugal ci yenn yi hmm. mooy comme yii ñu leen di dugal ay ay njaayum kii ne tak yu hmm. kenn xamul hmm. te kii bi ñu ko waxee ba mu waxee waaj ñu ko dama doon déglu xalaas ñu ne lii nii ay dóor la da xam na la ko wax bon maa ngi koy dégg mais man comme man yooyu concerne ma ça me concerne pas ku la wax loolu nga xam te ni kii parewul sax pour pour kii la effectivement il faut nañ nañ yeewu jaañ nañ ah, yeewu mi ngi noonu daal nañ yeewu mi ngi noonu daal ah 77 150 17 17 léegi nag deux Patrice Sandé ma nga ma ma ma ngay wax ba tey ma ngay wax ba tey ma ngi may attaqué di envoyé ay lu ne waaye waa jooju lu ma ko xamal dama koy suturaal rek ndax sa ndax sama soxna ma moom Patrice voilà voilà Eva rek laa ci rus ak gune yi ndax samay samay njaboot lañu mais la ma ka xamal bu ma ko waxee rek Sénégal wax na la mos a daje ngor ma nag moom ah kay wax na la ko ma non ma kaa wax mais wax nga ma ko mos a daje ngor ma nag moom waaw il faisait son petit malin waaw waaw xal lu ko ne a ma nag moom na wax la na doon def ah. su ko waxul lënd ma Patrice Sané loo doon def Ngor. en face station bi en face station. boo jégee noonu ci côté. boo jégee noonu waaw kuy jaay café noonu. waaw mos a fa dajoo waaw. waaw fa tase Passepartout loo fa doon def. ay mbir la woon altine boo ko waxulee. su la bàyyiwul rek je balance. voilà ñu xalaas la jaajëf. am leen jàmm sama gars yi